ñoo ngi lay fay. Euh, mu mel ni am na ay xibaar yu jipp ci wàllug euh, mbay mi ak it euh, nag li nga xamante moo jëm ci ay koppar yu ñu ne nguur gi daka daal di yoral opérateurs yi coow li daal di bari fan la dëgg féete dëgg-dëgg. d'abord maa ngi leen di gërëm di leen sant depuis vendredi. plus de quatorze milliards fay nañ leen ba pare. te après euh, dinaa jox preuve yi presse bi euh, comme ni ko premier ministre bi instruire balaa ñuy fay dañu war a vérifier confirmer les montants balaa ñuy fay dix neuf milliards mooy yi nga xam ne ni suñu service yi certifié nañ ko certifié nañ gum ko euh, sur les campagnes deux mille vingt et un deux mille vingt deux et deux mille trois si dix neuf milliards yooyu plus de quatorze milliards fay nañ leen vendredi te li ci des danañ ko fay tey jii ci suba. donc dama bëgg euh, ñaan aussi suñu mbokk journaliste yi dëkk bi ñun ñoo koy defar ensemble mhm. suñuy wax ci benn information seen code déwont seen code éthique war na war war na leen a pousser ngeen vérifier information balaa ngeen koy publier mhm. xam naa ne nax du ñàkk njuumte di am waaye euh, euh, lii ñu tiitre ci observateur rafetlu wu ma ko parce que méngoowul ak dëgg mhm.